ci ibnu wala ci abu bay askan jëmale ci mudaf mm. ilayhi bi ci ngay def yaa un nasabi mm. danga ko jàng wan suuf jàng nañ ko ci alfiya wan suuf li sadri jumlatin mm. wa sadri ma rukkiba masjan wa lisanin tamima idafatan mabduatan bimnin awab loolu moo alharamiya nisba ila bani haram dégg nga rawaa solena alxaarisu xaaris ibnu hammam hmm. an abi seydin jëlee ci seydin asroji hmm. xaaris mooy def riwaaye jëlee ci abu seydin hmm. qaal mune mune moom xaaris maasiltu moosu may dañ musaxaltu waxtu wa ma an sama gëlëm mooy bu ma ko defalee teg mm-hmm. wattaxaltu tema laxas han her fii sama jabar mm-hmm. waxar fii ak sama njëmbat mm-hmm. bi ma génnee sama dëkk jox gannaaw sama njaboot nekk ci suma kaw gëlëm dañu ma hoon ahinnu de binni de nimse ila hayanil basrati jëm ci jàkkaarloog busra li doon sama nim se mooy gis mooy haddu busra mm. amma ziltu dañu ma raxaltu waxtu wa ma tegalee mm. waxtu wa ma laxasalee an sama gélém mm. waxta haltu laxas aneer si wali sama soxna waxar ak sama njaboot dañu ma woon ahinnu binni ila ayaanil basra ti jëm ci jàkkaarloo basra haninal mazlum kem binni ku ñu tooñ hmm. ila nusrati jëm ci ndimbal hmm. muy nim se xam ne nim mënu ko romb hmm. ndax toll na ne ku ñuy lor ni muy nim ku ko dimbale li ma ngir li nga xam ne ajmaa dajeena alayhi ci moom arbaabu dirayati borom xamme yi wa ashabu ak ñooñ solo yi min xasaisi maalimiha hmm. ci ay jagalay mandargalay kayam hmm. wa ulamaiha ak ci borom xam-xamam hmm. wa maasir masahidiha ak ay ngëneeli teewi waayam wa suhadaiha ak i sahidam ndax ñi xam ñëpp ak ñi waxtaan yëpp bokk nañ nangu dëkk bi nim xamee ay jagalay boppam nangu nañ nim doone peyu xam-xam mm. bokk nañ nangu nim amee barab yaakaar mm. bokk nañ nangu itam niñ fi suule ñoo xam ne ci yàlla lañ dee mm. wa min ajli ma fiha tuhabbul manasilu te barab boo koy bëgg ña fa nekk moo tax a uhibbul hima li ajli man sakana al wa min ajli man fiha hmm. tuhabbul manazilu hmm. barab boo koy sopp hmm. ña fa nekk moo tax rek waaw waaw uhibbul hima li ajli man sakana al hima wa min ajli man fiha tuhabbul manazilu uhibbul hima li ajli man sakana al hima wa min ajli man fiha tuhabbul manazilu li maa ngir li nga xam ne ajmaa dajee na alayhi ci moom arbaabu dirayati borom xamme yi wa ashabu riwayati ak ñooñ min xasais maalimiha ci ay jagale mandargalay kaayam mooy barab yi fi xam nekk dajee kaay yi fi nekk wala maa yaa ak i xam-xamam ak i borom xam-xamam wa ak ay ngëneeli teew waayam mm. wa suhada yi e ak seeni say mm. wax alu may ñaan allah yàlla mm. ayooti ani ba mu dëggalat ma saraaha suufas busra li abusa ngir na texee bi maraaha ci gis busra sama nim si yëpp daal sama tànk dëkk ba sama bët tegee ca dëkk ba waaye yum téye ak mu waral ma xaraaha hmm. gannaaw ak busra hmm. li aqtariya hmm. ngir naa topp quraaha ay dëkkam naa dem ba dox ci suusa ndax ma gis ay dëkkam waa yum téye ak mu waral ma xaraaha gannaaw ak busra li aqtariya ngir naa topp quraaha ay dëkkam falamma ahallaniha ba ma wàccee busra alxadu cër wasaraxa te wër lii ñaal ma biha ci busra alxadu gendeku ba ma demee ba am sansab àgg fa nag gis nag na dëkk ba demee nag raaytu biha ma yamla'u l ayna qurratan wa yusli an il awtaani kulla garib raaytu gis naa biha ci busra maa lu xam ne yamla'u dana mu feesal al ayna bët qurratan mm. ci sedd mm. dama gis loo xam ne daal wax dëgg sedd na xol mm, wa yus lii te dana niisuloo mooy dana fàtteloo an awtaani walis dëkk kulla xaribin bépp aji tumaranke même boo soo ko gisee da nga fàtte sa dëkk arayitu gis naa bi ha busra maa lu xam ne yam la u dana mu feesal al ayna bët qurratan ci sedd wa yusli te dana niisaloo kulla garibin bépp aji tumaranke min awtaani walis dëkk mu ne fa xallastu ma mirmiral mooy ma teel a xëy fii baadil ayyaam ci lenn bis yi xiina nasala waxtu boo pare mooy ba rocceekoo ba dañee xidaabu dalam cuub ak lëndëm mu am bis bët set ma teel a jóg mm. waxalas ma mirmiral fii bandil ayam ci lenn fan yi kina mm. nasala waxtu wa dañee mm. xidabu sala xidabu eh, salam suubag lëndëm gi melaw lëndëm gi waxatafa texoo abul mundiri séq binnu waami ci way nelaw yi xam ganaar sab na teg la ne jóg jóg jot ma teel a li axtu wa ngir naa jeegoxu fii xitatihaa ci ay mbeddam mm. naa dox ci mbeddi dëkk bi mm. wa aqdiya ak ma faj al watara haajo mm. fii tawasutihaa ci ci diggum ak itam nim si woon naa fi yegsi naa fi naa dox gis ci dëkk bi fa daani bijji ma mooy yóbbu ma al ixtiraaqu xotti fii masalikihaa ci mbeddam ci suuf waaye mooy ci yoonam mm. wan walin silatu ak génn mm. fii sikka ki haa ci mbeddam mm. sikka xam nga mooy yoon wu ci diggante kër mooy mbedd yi ila mahallatin jëm ci barab dox gi may dox tax ma àgg ci barab mawsumatin bare bu ñu màndargaale bil ixtiraami ci hormal mu nekk barab boo xam ne daal ah niru na bu ñu fonk daal mandargaam fonk nañ ko daal laa gis man sooba bare bu ñu haskanee ilaa bani haram ñu ne banu haram ñoo nekk bi daati masajida barab bay boromi jàkka masfuuda yére yu ñu teewee mu nekk barab bu xami jàkka te jàkka yi dund lool itam waxyaadin ak i déeg mawruda yu di yu ñu root mu nekk péyu xam-xam itam bari jàngu te jàngukaay yi dund lool wa mabaanin ak i tabax wasiqatin yu de way dëgër wa maxaanin ak i wàccuwaay xaniqatin yu de way rafet barab la bu xam daal ci wàllu diina ci wàllu xam-xam ci wàllu naataango yëpp daal am na nu mu demee daal mm. wa xasaayis ak jagale mm. asira yëre yuñ tànn yëre yuñ xëfoo mm. mooy yu ñu jagoo wa masaya ak ngëneel kasira yu daway bari bi ama siita min diinin wa dunya wa jiraanin tanafaw fil maani wa masxuufun bi ayatil masani moftoonun bi ramnatil masani wa muttalihun bi talxiisil maani wa muttalihun ila taxliisi aani wa kam min qari'in fiha wa qarin adarra bil jufooni wa bil jifaani wa kam min maalamin lil ilmi fiha wa naadin lin nadaaxul wil majaani wa maanan la tazaalu tugannu fiihi agaridul gawaani wal agaani fa dil in siita fiha man yusalli wa imma siita fadnu min addinaani wa dunaka sohbatal agyansi fiha awil kasati muntaliqal inaani mu ne biha nekk na ja maa siita loo soob min diinin ci diina wa duniyan ak àddina barab ba daal loo fa bëgg ci diina njub ak xam-xam xam na ko waaye loo fa bëgg nag ci àddina kala poñat ak pox ak yëpp am na hmm. wa jiraanin ak i dëkkandoo hmm. te naa ko ñuy dàquwante nañ hmm. fil maani ci melo dëkk la boo xam ne nit ñu huute huute ñoo ko dëkkee parce que boo ko lool ñu bëri xaj fa su ko defee kenn ku nekk rek la ci wéttal waaw mooy dëkku pays dëgg waaw ah, ay nit ñu wuutee ñoo nekk hmm. te kum ci maanaam la nga nekk hmm. yaa ngi jaam wéttal hmm. famas foofu na am na ku ñu soppaloo bi ayatil masani ci ayaay fatiha sel bu baax a baax nit ko xam ne ñëpp moo leen man ci jaamu yàlla da nga ko fa gis nit ñu xam ne ñoo dàqa jaamu yàlla ku ne da nga ko fa gis waxam toonun ak ku ñu biran naatil masaani ci baati ay sëlimba mm. ak ñoo xam ne parek moo nekk ci seen bopp yi mm. te itam boo ko bëggee da ko fa mm. te comme ci doon la nga nekk yaa ngi jaam wéttal bu baax a baax bu baax a baax wa muttalion ak bi tal bi talxiisil maani ci segg ay maana mm. ak ñoo xam ne ci xam-xam la ñuy liggéey mm. bari fa lool itam mm. wa mutalihan ak aji xoolu aji nimse ila taxlisi anin jëm ci xettali ku ñu jàpp nga gis ñoo xam ne fi ngóora lañ boromi man-man lañ te dañuy def lu baax ci nit ñi wa kam min qaari'in bari na aji jàng fiiha ca barab boobale wa qaarin ak aji ganale qiraatu ak qiraa bokkuñ de ñu doon ñoo xam ne adarra lor nañu bil jufooni mbati badi jafnu wa bil jifaani ak ci bagaani jafna da ngeen ko jàng ba deseeti bët hmm. waaw nga gis koo xam ne yekk naa yekk ba xar na ci bagaan lu bari hmm. waaw joxe na ñam xar na ci bagaan lu bari hmm. wa kam min xaariin bari na aji jàng fii haa ca boobale ca barab booba adarra bil jifooni wa xaarin ak aji ganale adarra bil jifaani allëf wa nasru al murattabu adarra lor nañ ñoom ñaar bil jifooni ci mbati bëri mu dellu ca xaari uba wa bil jifaani ak ci bagaan yi mu dellu ci xaar yi bi wa kam min maalamin bëri na mandargaale kaay ñaal xam-xam fii haa foofa bëri na ay jàng yu ràññeekoo ràññeeku ay boromi xam-xam yu mag dafa liggéeyee ay nit ñu baax dafa jógee dafa génnee wanaarin ak penc lin na daa ñeexal may hmm. xolwel ma jaani braji neex ci côté de hmm. bëri naay def kat baax yu bëri yu def kat lu baax ñu baax ñu bëri ñu fa nekk hmm. soxla yi di fajoo ci ñoom wa maanan ak wàccuwaay e boo xam ne laa tasaalu dé laa tasaalu dumu dañ a tuxannu déefi wëy fii ci wàccuwaay boobu axaaridul xawaani wëyi jonga mayi wal axaani ak seeni way ak am na barab yoo xam ne da ak xumbute ga ah doy na ko sëkk daal ak xumbute ga daal doy na ko sëkk daal awa maxnan ak wàcci waay yoo xam ne la tasaalu dumu dañ toxannu deefi neexantal fii ci moom axaaridul xawaani way jongama yi wal axaani ak seeni way fasil na nga jóg in suita boo soobee fii ci barab boobu ma yusalli kuy julli su fekkee jaamu yàlla nga bëgg hmm. mën nga faa amee wéttal ba ñemee ko def hmm. wéyi ma siita boo soobee hmm. fat nu jegeñal mi na dinaani daal sadi su fekkee leneen nga bëggi day ah, nga xam ñoo ci nekkat de wa doona ka jàppal soxbatal ak yaasi ànd ak way fii ha ca barab awil kaasaati wala nga ànd ak kaas yi boobu nga ànd ak nit ñi daal wala nga ànd fokkat yi dëgg rek awa doona nga jàppal soxbatal ak yaa si ànd ak way muusi fii ci barab boobu awil kaasaati wala kaas mun tali xalaay naa ne daaji boyu ci bopp dem barab bu ñuy wax banu haram barab bu ñuy askane banu haram qaala haris neena wala abu zaydin neena fa baynama ana diggante ba man an kudu maa ngi fëgg turuqaha ay mbeddam waata sifu damay settan sa raw na taaram ci mbetteel la maxtu gendeeku naa hende duluki barahin fo fenk ak jant ana fa jeng ak jant bi bara ci turi jant bi la ci la maxtu gendeeku naa hende duluki bara fa jeng ak jant bi mooy fa jege soam dinga ko wa idlaali rawa ak ak si gont bi nga xamee ne daal dellu ca dal ba mu ngay jotte laaji hmm. masjidan jàkk hmm. mustahiran julaaji siiwe hmm. bi taraifihi ndax du la ah. ci tarifa mooy yu rafetam ba ci benn jàkk joo xam ne ju ràññeeko ci xibaar yu rafet yuñ cay masjidan jàkka mask mustahiran juraaji siye bi maskin fi taraifi ci taram ci kéemaana hmm. mustahiran juraaji leere hmm. mooy ji dundee lool hmm. bi tawaifi ci way wëram mu nekk jàkka joo xam ne mbooloo mu bare fa nekk wala ci ay kuréelam bi tawaifi ci kuréelam ay palaasi jotaay jàng yu bari moo fa nekk xañ na loolu la a wax fawajtu ma jëng hmm. nahwahum fa seen wàll wa xaraja te dawal na ahluhu ñoñ ja hmm. sigral badali sigra hurufil badali hmm. tudd hurufil ibdal mu ne gaañaa ngi waxtaan ci mbiru nahwu sarfu ba àgg ci ibdal mooy ha daal hamsata miim wawtaaya mooy hmm. hadaftu mootiya hmm. ba nga jàngoon ci alfiya hmm. kum ji mën doon fan lañ koy jëfandikoo pour ibda wa jaraw ñii daw fii halabatil jadali ci lefam daggi hande ñu nga ca werante daal fa hojtu ma jeng nahwahum fa seen wàll li a samtira naa tawlu sàkku taw naw ahum seen biddiwi ndox ya mm. laali ak tabis waaye dun ngir naa juumu naxwum seen xam-xamu naxwu mm. abu seydi ne ma jaar fa mm. fekk xam naa jëlee fa dara la sax waaye dut affaire naxwu bi ñuy waxtaane ci laa bëgg am dara ndax maa leen ko dàq fe waaw fa xojtu ma jeng naxwuhum ba seen wàll li a tamsira ngir naa tawlu naw ahum seen biddiwi ndox ba laa jénguma li aqtabisa ngir naa juumu naxwum seen xam-xamu naxwu ba hmm. walam yekun nekkul illa ka tabsatil ajilaan hmm. ndare kem juumu aji yàkkamti hatta hmm. tafaat lu muy yëkkateku ala suwaatu baadi bilasaani ci noot mu ne tuuti lay toog rek bu ko defee noddkat yi dal di nodd su mara di fa topp topp attaadina nodd gi burusul imam génn gëliman bi noddkat yi pare rek imam génn soo hmm. mi dat mbata leer oto hmm. jaasi a ñëw waxi la hmm. ñëpp noppi mooy waxi buñ doon jaasi ñu bëgg a leen ci seeni ba soo mi dat mbata leer oto jaasi a ñëw waxi la wala te fecceer alo ba fereng lay lil xëyami ngir taxaw ñëpp jóg wa suxil naa soxlaalees ñu bil xunuuti ci jaamu baat bi bëri na maana waaye am nañu nag xeeti jaamu yëpp dugg na ci ani istimdaadil xóoti walis ak ku dund te ku dund bu ko dee liñ nekk ci mbiram julleeg yi julli di àndal tax na ñun mënuñu wax liñ bëgg wa sujoodi ñu soxlaale ñu ci sujood wa ñu sujood ñu soxlaale ñu bi sujoodi ci sujood hadisin sali joli wali sakko wacce tam mm. wala ma qudiya ba mataleete mm. al fardu julli farata mm. wa kaada te jege al jamu mbooloo mi yam di tasaaro ba julli ga matee nag ba nit di bëgg tasaaro im bara gaar min al jamaati ci mbooloo bi kaalun am laxam bugaar ci mbooloo mi mm. koo ne xëy na doxagul màggat mm. waaye na doxatul ndaw mm. mu ngi toll ci sunnul kubóo la xulul baraati ku daa neex ci fasaha nekk ku ne ku neex kàddu la la woo ñi àl na ko dalaqatul lasani fasaha ak lammiñ maa samti ànd ak melo alxasani bu daa ji rafet dafa waji mu am itam fasahatul lawoo ñaal na ko maa samti ànd ak melo alxasani bu daa ji rafet talaqatul lasani fasaha ak lammiñ mooy mën a wax ak lammiñ wa fasahatul xasani ak fasaha xasanul bisri buy wax daal danga foog ne xasanul bisri la wa qaala yaa jiirati e yéen samay dëkkandoo alladina ñi nga xam ne istafaytuhum tànn naa leen ala axsaali sajarati ci banqaati sama garab hmm. yéen samay dëkkandoor hmm. wa jaxaltu tema def xittatahum seen mbedd hmm. daara hijrati muy kër sama gaan sama seen kër gi muy suma làqookaay yaa jirati samay dëkkandoor alladina ñi nga tànn naa sajarati ci banqaati sama garab wajaalu tema def xittatahum seen mbedd daara hijrati muy kër sama gàdday wa taxatum tema jàppaleen këris yi wa aybati yi këris mooy bagaas yi nekk ci biir ayba mooy defu kay yére mooy laa def ngeen di ñi may dénk samay sekkare waadattuhum tema xadu leen li maxdari ci sama teew wa xaybati ak sama faddu yéen ñi nga xam ne su ma nekkee yéen mm. yéen laa gis ne yéen ay samay mm. su ma leen soree itam yéen laa gis ne yéen la am mm. yéen lay wax ne ama taalamuuna ama taalamuuna xanaa xamu leen ne anna la boosa sidqi naka kodday laa moom dëggu la afal malabisi moo gën a rafet ci kodday yi alfaaxira yu damu nit ak lu muy taaroo bu du dëggu dëggoo ko gën a doon duniya ak naka gàcceeg àddina ak woonu moo gën a doxaat min fu doxil ci gàcceeg àllaaxira te itam gàcce lu mu fii ci àddina moo gën gàcceeg yawmal qiyaam moo woyo waan na diina ak naka diine imhaadu nasihati sallallahi billah dangeen a xam ne diina layi biir guraxu dara la mm. comme addiinu nasiha mm. wal irsaada ak naka gindi mm. onwaanul aqidati mooy adresse pas-pas aseyaati budaaji wér nit ki laaj na yoon nga won ko yoon mandarga la jine xam nga pas-pas bu rafet ci moom waaw wa irsaada ak naka gindi onwaanul aqidati mooy adresse pas-pas aseyaati budaaji wér waanal mustashara ak naka ku ñuy diisu hmm. mu'tamanun kuñ gàcci kóolëre la ne bu bay la diisu rek hmm. xamal ne xen na la kóolëre hmm. boo ko waxu lii dëgg rek xuruñ nga wal mutasida aji gindeeku ku bëgg a gindeeku xami aji xeyoo la mu bi nosi ci layee biir ku bëgg ko teg ci yoon kooku dimbale ko teg ko rek lañ war a mooy rajulun yadri hmm. la yadri hmm. wa yadri annahu la yadri hmm. wa dalika mustarshidun fa'allimuhu waar na axaaka ak naka sa mbokk moom alladi mooy ki nga xam ne hadalaka yadda na la lalladi waaye du ki nga xam ne asaraka woon na say faas wala nga ngantal na la asaraka ngantal na la nga def lu jagari kala xamal ne lii jagu hmm. nga jaaji ci balam la yàqal hmm. ko gaay sa mbokk de hmm. kala ko xewa falal ba suro kooku du sa mbokk de wa sadiqaka naka sa xarit man mooy ki nga xam ne sadaqaka wax na la lii dëgg rek laa man dut ki nga ne sadaqaka daf da naan wax nga dëgg <laughs> kii ki def la wax mu ne dëgg buy dëgg bu du mu ne dëgg la kooku du xarit xarit mooy ki nga wax nga fa qaala dal wax la hoo ñaar ko alxaadiroona way teew yi ne ko ayyuhal xillu ayow xarit alwadoodu bade soppe wal xidnu tey xàndandoor almawdood bade bu ñu sopp maa ana lan sirru kalaamika mooy mbootam sa wax almulxas jëre ju ñu jame wa maa ana lan saru xitaabi ka mooy leeral ka waxante mm. almujas gëre guñu gàttal mm. wa ma ana lan mm. alladi mooy li nga ne tabxi yaa ngi koy sàkk min ñun li ñun jasa ngir teewale ko ñu ne ko dëgg la mbokk nga xarit nga waaye li nga wax dam ñu dafa leer te lim xam ci la mën a dugg leeral li ngay ayuhal ayuhal xillu ay yow xarit alwadóot bay soppe hmm. wal xibnu tey àndandoor almawdóot kër ku ñu sopp hmm. maa ana lan sirru kalamika mooy mbootam sa wax hmm. almulxas jëre ju ñu jabe wa maa ana lan sarru xitaabika mooy leeral ak sa waxante almuujaz bare bu ñu gàttal wa maa ana lan alladi mooy li nga xam ne tafxi yaa ngi min naa ji ñu diwén jësa ngir na teewale ko walladi giñ naa ci buur bi nga xam ne hmm. xabaana may nañu hmm. bi mahabbatika ci sa cofeel hmm. wa ja'alana te mu def ñu min safwati ahibbatika ñu bokk ci wéy selli say soppe maa na looka duñu la gàttañ lu nu san ci lahi biir wala na daxiru duñu denc an ka walis la nas xan may gis na ko baax a baax ñu ne giñ ci yàlla mi ñu booleeg yow mm. li nga bëgg ci ñun mm. dañ ci taxaw bi ko xam mm. wala di giñ na ci buur bi nga xam ne abaana may nañu bi mahabbati ka ci sa sopp yàlla mi def nga sopp ñu wa ja'alanaa te mu def ñu min safwati ahibbati ka ñi bokk ci wéy selli say soppe nga dem ñu si sopp ñu si soppe dëgg ne maa na loo ka du ñu lu mooy du ñu la sàgganee nu saan ci layee biir wala na daxiru te du ñu denc an ka walit la nat xanu may baax na ko indi bayat utiitum yal na fegaleef leen tayran lor fa innakum yéen mim man yéen ngi bokk ci ñi nga xam ne la yasqa du texe hadee bihim ci ñoom jëli sun aji jikki haale wala yasduru te du gonge ko anum jógee ci ñoom talbisun lëntal jaxas yéen de ay nit ngeen ñoo xam ne kuy toog ak sàllaw xiw rek lay jëlee ci toogaale yéen mm-hmm. aw nit ngeen yoo xam ne itam ku leen di déggal mm-hmm. loolu leer rek lay déggee ci yéen mm-hmm. du ngeen toog ni muy loroo ci toogaale yéen naka noonu lu du ngeen ko def waaye nag comme yéen ñu man yéen a ngi bokk nga xam ne la yasqa du texe xaadee bihim ci ñoom jëlisun aji jékki xaale wala yasduru te du gonge ko anum ci ñoom talbisun jaxase lëntal wala yu xayyabu te defu sooyal fihin ci ñoom maknunun lu ñu njortu te itam yaakaar du tase ci yéen wala yu duwaa defu leem doona mum walis leen maknunun lu ñu nëbbu comme na nii ngeen melee nit ki daf leen ku ñëw ci yéen daf leen war a wax mbiram biiram kenn warul leen nëbbu dara hmm. wala yut waa wala yut waa déefu leen hmm. doona mu wëleef leen hmm. mag noonu lu ñu nëbb wasaabu sukkum danaa leen tasaareel maa li nga xam ne waaw wasaabu sukkum danaa leen tasaareel maa li nga xam ne haaka sax na fii sadri ci sama dënn waa saftikum te danaa leen laaj fii maa ci li nga xam ne ay la notees naa fii am sama muñ dafa am loo xam ne mooy jaaxle gu sax dakk dakk ci sama xol demee nu xam ne munu koo demaale te xaw ma na may def ba génn ci loolu laa leen bëgg leeralal bëgg nañ ngeen teg ci ci yow wasaa sukkum xes naa leen nañ yullil mooy génneel mm-hmm. eh, maa li nga xam ne xaaka sax na mu mm-hmm. fii sabri ci sama dënn mm-hmm. li nga xam ne ci sama xol la nekk jeexital ci te jógee wu ci waa sabtikum danaa leen laaj danaa sàkku seen hubee mooy danaa leen laaj fii ma ci li nga xam ne fii ma ci li nga xam ne xeela notees na fii jam sabri sama muñ nit soo ko dugalee ci mm. te bëgg mu xam ci mu xamal la seen njëriñ mm. la seen mm. dangay fexe mu xam ko ca loolu nag bokk na ca lam ca war a xam nga ko waaw wala lam ca war a xam nga ko ñun an nii naka hmm. kuntu nekkoon naa inda hmm. sulu di sandi mudaf ilayhi la inda hmm. sulu di sandi inda ah. la di sandi fa géej ak doju béy wa sududil jëddi ak du muut nekkoon naa axlastu di sellal mahal laay ànd ak niyatal aqdi yéene pas-pas waxtaytuhu tama jox ko safqatal aqdi tàccu kóolare an la asbaa bu det may jënd mu daa sangara wala waaxira den may toogaale wala tëqoot na dama ay naanu haale wala axtasi ak bu may góox xawatan sangara wala ak tabiya te dit may hoddoo mm-hmm. nas watan malik dama giñoon muy lu ma kóolranteeg yàlla mm-hmm. ne haddina duma jay mm-hmm. ba ma naan sàngara haddina duma jonje ba ma naan sàngara mu ne booba nag yoraguma dara ah managuma dara selungu baax a baax nit ko haddina dëddu dara doo dara ah. ki dëddu àddina mooy ki mën a def dara te defu ko waaye munoo dara defoo dara kooku àddina moo la dëddu rek waaye du yow yaa ko dëddu dama tolloon ci temps boo xam ne àddina joxagun ma njëkk ma foog ne dëddu naa àddina bay gi naan man kay du ma def nangam man kay du ma def nangam léegi boo man àgguma ci dëddu àddina àddina ma dëddu rek bokku ci dëddu àddina dëddu la bokkuñu bokkuñu de kuntu nekkoon naa axlastu di sellal maa lay ànd ak yàlla mm-hmm. niyatal di xéene pas-pas mm-hmm. waa saytoo te ma jox ko mm-hmm. safqatal haadi kóolare tàccu kóolare mooy ma kóolare ante ak moom an den may jand mu daaban wala waa xerete den may tëqoo nadama aji naanu haale bu way naanu haale wala axtasiya te duma góo xawatan sàngara wala ak tasee te du ma xoddoo naswatan mandite ndax nag dëddu àddina la wala ñàkk man-man rek la xool xanaa ñu seet ba xam rek mu ne fa sawwala dal di rafetal liyee ñaxal ma an nafsu bakkan al mudillatu bada aji réeral wa sahwatu ak bànneexu bakkan almudilla badaaji toroxal almuzilla badaaji tarxeesal anna dam anna damtu uma naan waale alabtaala jàmbaari wa ataytu tama joxante al abtaala ridlu yi waadantu ma sànk alwaqara wegu hmm. wartadaatu ma nampu hmm. alwaqara sangara hmm. wamtataytu ma war matal ko may fi gannaaw sangara watanasaytu ma fàtte fàttelu attaw batal tuub tanasiyal mayti fàtte fàttelu kaaji dee mu ne bakkan nag dal dama topp nag ak bànneex rek dama demee ba man di jaxasoo ñenn ñi ma jaxasoo ak ñenn ñi mm-hmm. nga def li ñoo def mm-hmm. waaw naan sàngara bu baax mbiru mm-hmm. tuub moom ma jox ko gannaaw waaw man man dikkee ah bakkan mel ni fi ne moom bu bëggee dara dana ko mën a am rek mu commencé jaxasoo ak ñenn ñi rek ah nga ñoo def rek yu bëri ma jëllale ko wane fa sabu wala dal di rafetal li yee ñaxal ma an nafsu bakkan al mudillatu bu daa wa sahwatu ak banneex al mudillatu bu daa ji al musillatu ba daa ji tar xeesal an ma naanu xaalee ala bu taala jàmbaar yi waa tey du tema joxante ala taala ridlu waa dantu tema sànk alwaqaara wegu mm-hmm. wata dantu tema namp alwaqaara sangara mm-hmm. wanta taytu tema war matal ku mayti gannaaw sangara mm-hmm. wata naa say tema fàtte fàtte lu ataw ba te tuub tana fiyal mayti fàtte fàtte lu aji dee baatum mayitu ñu ne ku dee ba pare ci lañ koy jëfandikoo baatum mayit nag man ko dee jëfandikoo jublu ne kuy mos a dee laay dee abdu xam nañu na ne ñaari baat yi su benn lañu dégg nga ayasa ili tafsira mayitin wa mayitin fa dunaka qad fassartu in kunta taaqilu mm-hmm. man kaana za ruhin fa dalika mayitun wal mayitu illa man ila alqabri yuhmalu mm-hmm. wa tanaasaytu ma fàtte fàttelu mm-hmm. atawbata tuub tanaasiyal mayiti fàtte fàttelu ku dee su ma topp lam axanaa doyloo bu ma de mm-hmm. bi haati kumul marra ci wili mm-hmm. di du wenn yoon laa mm-hmm. fi taxaate abi murra ci topp ko sayta saytaane déedéet dama dëkk di ko rek hatta hakaftu ba ma sax alal xandari si ci sàngara fi yawmil xamisi ci bëccëgu alxames wa bittu ma fanaan sarian ba de ku ñu nërmali sàngara bi laylati ci guddi alxarra guddi aji rafet defu ma ko benn yoon de ko dëkk de def ba am bis bi bis rek seytaane man ma naan loo ma sàngara bëccëgu alxames ma mandi guddi àjjuma ba mandi tega jeex ak yi ñu yaakaar ci guddi boobu liggéey waa yëg leen ne ana man baadil kaabati aji feeñ ci njàqare yoo xam ne inaabati ngir fëgg gi ma fëgg tuub mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. waaye yëg ne ana man baa di kaabati aji feeñ ci njàqare laa yoo xam ne nadaamati ngir fëgg tuub naa min nadaamati aji màgg aji yokk ci réccu li wax lil mu daamati ngir jokku sàngara réccu réccu de gu tatatat sadidul isfaaq ku tar ragal la min naqadil misaaq ngir firi kóolere sàggane gi ma sàggane kóolere gi ma seq sama borom tax na jàq jàq naa ci sama borom mutarifin aji tudd la aji tudd la bil israfi ci jéggi dayo fi abbi solaafi ci góox sàngara lu gi ma wax sàngara nii baaxu fa yaa qawmi hal kafaaratan taarifuunahaa tubaa'idu min dambi wa tudni ilaa rabbi fa yaa qawmi ay yéen samay bokk hal kafaaratan ndax yéen a ngi xam genn kafaara ndax taarifuunahaa yéen a ngi ko xam ittiqaal moo ci nekk ndax xam ngeen genn kafaara goo xam ne tubaa'idu daf may soril min dambi ci sama bàkkaar wa tudni te dana ma jegeñal ilaa rabbi jëm ci sama mooy lii laa def de ku ma tegtal loo xam ne su ko defee samay bàkkaar far ma a am jege yàlla loolu laa ne géej de di la wax qaala abu seydin abu seydin nee na maa xalla ba mu feccee nag um sootata nafsihi fakre cig tuddam wa qada te mu faj alwatara haajo ministre kaay basihi ci tawan njàqarem mu ne ba mu waxee nag li mu bëgg wax ba fii mel ni jaaxlem tawatee na ko na mu ko bëggoon tawate naajat nii déyaale nag man nafsi sama bakkan ne ma yaa aba zeydin hadihi lii nuxsatu zeydin man nga xam na sama bakkan daa may doon li nag occasion la pour mos dara ci kii hadihi lii nuxsatu zeydin man nga rëbb la fa sammir na nga an yedin ci loxo mm. wa aydin ak kattan mm. li ma ci xam mooy topp ci bañ a tayal mm. waaw fa sammir na nga an yedin ci loxo wa aydin ak kattan fantaxatu ma dal di buur min may sami tukkee ci sama góor waaye fi ma toogoon intihaada sami kem gaaw ak aji ñëw kem buur aji ñëw ma dal di buuree fi ma toogoon buurinu ku ko mën a gindi léegi Mm-hmm. ah kon mm-hmm. taxabtu mm-hmm. ma daal buure min majtami ci sama tooguwaay intihaada sahmi buur ak aji ñëw wan xarattu ma dugg wala ma génn min a soppi ci sappe si inxiraata sahmi génn fet ma génn taxaw fële mel ni fet buñ téere mu ngi génn wa qultu ma wax ne ayyuhal arbaau ba maa baax na ko dafa wax ne kon maa ngi tollu barab soo ma xeetalee. daal mm. dana far sa bàkkaar. dëgg la bu baax. tedd nga mm. da dan ak ci càng mm. wala wasuudu dan ak ci càng mm. yow sang bi nga xam ne ñëpp yaa a doon sang di tey ki nga xam ne yab tax yi dana mu sàkku arrasaada njub li yan na muccee fii ci moom xadan hëllëg yow mi bëgg ku la teg ci yoonu njub ndeg bu hëllëgee nga mucc inna indi naka nekk na fi man hmm. la jama garbal ak li nga xam ne hmm. bitta fanaan nga musahadan de ko ñu hmm. min wu ngir moom sàllaw daal li la tee nelaw daal man gaaw naa ci sottalal la ko lool waa inna indi naka nekk na fi man la jama garbal ak li nga xam ne bitta fanaan nga min wu ngir moom musahadan de ko ñu fogloo li la tee nelaw daal sàllaw saafara ko man pour man du daal fastamiha déglu ko nag mm-hmm. nga déglu nag mm-hmm. ndax sens la mm-hmm. waaye du li nga koy jëlee ko dem man koo jëlee ñoom déglu ko de ajibatan muy lu yéeme nag xam naa képp ndaan la nag lu xam ne xaadarat nii bàyyi na ma muladdadan ma daa ji geesoo ki la loo xam ne heure bu ne maa ngi geesoo de déglu ko rek fatami a déglu ko ajibatan muy lu muy kéemaan lu xam ne xaadarat nii bayi na ma mu la dadan ma di ku ñu geesooloo ana man min saakini saruja maa ngi bokk ci way dëkki saruj sawi diini ñay boromi diina wal huda tey boromi njub maa ngi dëkk saruj dëkku diina ba dëkku tiranga ba dëkk boo xam ne mu ngi mel na xadra bi ñu waxoon hmm. ca xayrawaan hmm. ala saqallaahu ardal xayrawaani xayan hmm. ka annahu abaratil mustahillaatu ka annaha laddatul jannaati turbatuha miskiyatun wa hasaha jawhariyaatu ardun aridatu arjaain mubarakatun lillahi fiha barahinun wa ayaatu mu ne Sallaw daal sama dëkk comme comme foofu la mm. comme noonu la mm. ala saqallaahu ardal xayrawaani hayan mm. ka annahu abaratin mustahillaatu taw bu dëkkee de sotti ni sama ronga ñi dëkkee sotti yal na wàcc xayrawaan ka annaha labdatul jannaati dëkk xayrawaan comme bànneexu hajjana la mm-hmm. turbatuha miskiyatun wa hafaha suuf si dafa am xeñan misk hmm. jàmbara yi xam taaru jawhar hmm. abdun aridatu arjain mubarakatun hmm. suuf su barke la su naata naat soo xam ne boo ciy dox bu ne lu neex moo lay xeñ lu rafet ngay gis ci benn jamono nga boole nag bànneexu bakkan ak bànneexu bët lu yéeme la lu xam ne ci kéemaane yàlla yi lañ ko war a boole len lillahi fiha barahinun wa ayatun kuntu nekkoon na daa sarwatin de borom ak koom bi haa ci saroj mm-hmm. amoon naa foo lu ne mm-hmm. ku bëri woon alal la mm-hmm. wa mu taan te de ku ñu topp mu sawadan de ku ñu sangal a nekk fa am fa baat itam de ku ñu déggal bo a kuntu nekkoon naa daa sarwatin de borom ak mu taan te de marbahin sama wàcc waaye sama kër hmm. ma ëllëfu du yoo fi miinu waaye gan ñi la hmm. wa sama xaalal sudan lu ñu neena la lahum ñaal leen hmm. sama kër heure bu nekk gan ñaa nga fa sama xaalal heure bu nekk rek wut ñu fi maranke ngay jëriñu war waaye tukki jë sama ñam lekk jë sama palasañ marbahin sama kër sama wàcc waaye ma ëllëfu du yoo fi mooy miinu waaye gan ñi wa maa lii sama alal sudan lu ñu neenal la lahum mm. ñi àll mm. kenn contrôlé woon ci ci dara luñ ci bëgg mën nañ ko jeere mm. aftari yi danaa jënde alhamda cant billuhaa ci may dëkk gi ma dëkkoon da jëriñ bi ndee fi taxoot dama am seen ak cant waaqi may fege alhamda dar may fegale may fegale may fege alhamda dar bil jadaa ci may bañ sama der yàqu taxoon na heure bu ne rek mm-hmm. may faatal sama alal mm-hmm. la ubali den may faale mm-hmm. bi mun fitin ci aji foor taaxa joj sànneeku na fil badali ci joxe wan na daa ak li hëpp naa joxe yooyu man xamu ko lu xaral foor foor daal man joxe ko te suma der rafet joxe ko te am cant ak bi léegi nangu woon naa koo xidu daan na taal hmm. an naara safaraw ganale bil hmm. yafaan ci barab yëkkateku yi mooy domo yi hmm. isan nik su bu fayee ñoxor xob nga biri haale ahmada su ne ba ñoxor xob yi di mboqutu man si digg ndend ga fa mu gën a kowee falale taala sama safaraw ganale ku fi ñëw ma ganale ku fi ma ganale nit su bu xëyee ñoxor xopp mm-hmm. nga firi haale ahmada mm-hmm. suñ demee ba locc di mboqatu mm-hmm. da fekk man fa mu gën a fa mu gën a feeñee faraade lojee samay gëlëm taa sama safaraw nganale pour ku fi jaar reer dama mel ni xaatimu tayi ka doon wax jaamam bi aw xit fa inna layla laylun qarru wa riixu fiha baradun wa sirru mm-hmm. taxalal tey dafa sedde mm-hmm. te ànd ak ngelaw mm-hmm. aw qid yara naara kama yamurru in jalaba dayfan fa anta hurru mm. ah, da nga taxal ba mu mm. yanji ndax ñii dox gis ko mm. teral bu bi gan reere yow goreel naa la yow mm-hmm. ne man kërim bu mel naa la noonu la comme hati mu tayi mm-hmm. ki doon wax jaamam bi loolu mm-hmm. a ah, awqit fa inna layla laylun qarru wa riixu fiha baradun wa sirru awqit yara naara kaman yamurru in jalaba dayfan fa anta hurru waqiru danaa taxal adnaara sabara bilee faaxi ci barab yëkkateku yi mm-hmm. isan nig subu fayee ñoxor xokku mm-hmm. wayraani daan na ma gis almu ammiloona way yaakaar yi mm-hmm. malaatan may wéeduwaay wa maqsadan tey jubluwaay mboolem borom yaakaar yi liñ gis mooy man daal luñ ma àggee seen xel dal na ci fu ñu bala seen dale kenn man la njëkk lami hmm. si hmm. hmm. mos da ah, séenu baari sama mela sa din aji mar fan sana mu wëññeekooti yasta kii da tawatati asa dama xam soxala xàggee ma ko de xam loo ca jàmbatati mos da xam ah lami si mosul séenu baari xii sama mela sa din aji mar fan sana mu wëññeeku yasta kii da tawat asa dama laa diirit wala rama mosul sakku xaabisun aji juumu hmm. xatasan di ko ci suma doji béy hmm. faas la dem hmm. bëgg foo leerloo ñëw ci man te doo am leer mosul am wala rama mosul sàkku xaabisun aji juumu xatasan di eh, ko suma doji béy faas la dem mu géey taalama saada na bu dimbalee asamaanu jamono faas ba tuma daal de xëy musan mm-hmm. dan de ko ñu texeel mm-hmm. wala musan dan daa dimbale mm-hmm. jamono daf ma dimbale woon may dund ci saada su fekkee musan dan nga wax jamono dimbale woon sama man man may ci dimbale nit ñi su fekkee musan dan bi kasril ayni mu nga wax lu ci nekk dogal allahu yàlla an yuxayyira ba mu soppehat maa li nga xam ne kaana nekkoon na mu xam hmm. wada hmm. ba mu ko defee mbiru àddina tey nii ëllëg na le hmm. moo ca xab mbir ma siri hadi àddina tey nii ëllëg na le e moo ca xam mbir ma dal di soppeeku fa qada dogal allahu yàlla an yuxayyira ba mu maa li nga xam ne kaana nekkoon na moom yàlla am mm. wada dañu ko miinal mm. ba wa a wàcce na mm. a ruuma waa ruum ardana suñu suuf mm-hmm. banda dex nen ci gannaaw ak mbañeel tawan la da goog juddu na mm-hmm. ak noonu moo xam ci suñu diggante ak waa ruum <coughs> waa ruum takk xare dégg noonu googu wàcce suñu dëkk ba nangu mm-hmm. fastabaaxoo ñu daganal xarima mm. man xarimu képp ku xam ne mm. saa dafoo dajal nañu ko mm. mooy fiiroo ne ñoom moom mu waxidan mu daal di fas wéet ak sama borom képp ku ñu muy julli rek ñu nangu këram nangu njabootam nangu alalam fastabaaxoo ñu saa ko daganal mooy ñu jël nangu xarima man xarimu ku xam ne saa dafoo fiiroo ne ñoom moom mu waxidan mu daal di fas wéet ak sama borom waxawoo ñu daal di làq. Hmm. kullama lépp loo xam ne itasarra nëbbu woon na. Hmm. bihaa ci soroj lii ñu ma. Hmm. wa ma ak lépp loo xam ne badaa feeñoon. lépp lépp lu ma moomoon. lu nit ñi xamoon ak lu ñu xamul. yépp ñu teg ca loxo. gis nga ko baax a waxawaw ñu daal di làq kullama lépp loo xam ne tasarra nëbbuwoon na. bi a ci soroj lii ñu xal ma. wa ma ak li ne ba daa feeñ na. wa tata waxtu ma sànneeku. fil bilaadi ci dëkk yi. tari daan de ku ñu dàq. musarra daan de ku ñu dàq de ku ñu loo. léegi nag dara mooy tax nit mën a toog. dara nag. ma gis ne du mën a dem. waaye tëlee toog la. ma jox comme kuñ dàq. Mm-hmm. tey fii ëllëg fële. Mm-hmm. loolu laa dëkk. Mm-hmm. yawman bi misra. wa yawman bil iraqi. wa yawman bil hijazi. wa yawman bil xumaysai. tey fii ëllëg fële rek. fa tatabaxtu ma sànnee ko fil biladi ci dëkk yi. tari daan de ku ñu dàq musara daan de ku ñu dàq. ajtadi may mayu mooy made ñaan. annaasa nit ñi mm-hmm. baax dama kuntu ci gannaaw bu mu nekkee gannaaw bu ma nekkee mm-hmm. mujtadan de kuñu mayu de kuñu ñaan mm-hmm. min xablu ca njëkk nit ñi daal dikk ci man ndeg seeni soxla tey man maa dëkkee dem ci nit ñi ndax sama soxla boobu ay tëddi danaa ñaan danaa mayu annaasa nit ñi baax dama kuntu ci gannaaw bu ma nekkee mujtadan de kuñu mayu de kuñu ñaan min xablu ca njëkk waturaa def na gis biyee ci man xasaasatul ñàkk bu hmm. xam ne ataman naa danaa mébat hmm. arada dee laa ngir moom hmm. ñàkk gi may ñànko ñàkk ñàkk gi may jànkoantel te di kon deyaa ko gën ndax toroxaande laa ci ragal torox moom deyaa ko gën innal maniyata inda dulli xindiidu mu su dara lu mooy torox rek defal dee muy sa ngëjum suugaa nga ngëjum ko topp waaw mooy su fekkee trop rek moo def. Hmm. defal dee muy sa ngëju. Hmm. muy mu comme suukar la. waaw hmm. ah. innal maniyata. inda dulli. xindiitu. waaw ah. mu ne su fekkee ne ngay trop rek la. ko moom xamal ne dee bantu bantu ngëju bu saf la. bu saf suukar la. waaw ah, saf suukar la. te loolu laa ci ragal. waaye indaha la da taamal mawti saaribuhu. innal maniyata inda dulli xindiitu. wa na jig biyee ci man xasaasatun ñàkk mm-hmm. bu xam ne ataman naa danaa mi bat lahaa ngir moom arradaa dee mm-hmm. wal balaa u musiba mm-hmm. alladi wi nga xam ne som lu unsi mboolem suma wéttal tabaddada tasaaroo xeena bihi ci moom istibaawam na ti mooy jàpp suma doomam jigéen allati ki nga xam ne asaroo haa jot nañu ko li tub ngir na joteel mu ne li sama àddina nag surtout muy sama doomi jigéen ji ñu jàpp mu ab jullit de góor piir war nekk ci loxoy ay héebar de seen jàmm loolu lépp ku jàng wala yeñ xalal laahu lil kaafirina xalal sabilan doo a dund daal da ko mën mm. a gudd daal. waaw wala yaj'alal laahu mm. lil kaafiriina alal mu'miniina sabiilaa. Mm. et loolu ku ko jàng. lii doo ko a dund. moo tax lii daal moo ma tee nelaw mu ruus sama bopp bi rek. tuuti rek moo def. fastabir na nga bir lu mexnati sama coono. wa muddate nga tàllal yadan loxo ila nusrati jëm ci sama dimbali. soo bëggee yàlla gërëm la musal la. lii ci ngaa def daal. li ci nga dara hmm. gannaaw boo goreeree jaam sër hmm. bu ne ca jaam ba hmm. ba mu tolloo ci yow yàlla dafay goreel ci safar lii boo ko defee goreel nga jaam ah te loolu li ci nga jéem dara waaw ah. xamal na xelal déet mais suñ ko jàppal nit xamal na xelal déet ay wax ji jub na de baax na foofu gën nga xettali ma mina zamani ci jamono faqad jaara jeng na moom jamono waxta daate mu jàggati déglul li may wax te jéem ci dara xettali ma ci xat-xat bi ma nekk waajir ni te nga xettali ma mina zamani ci jamono faqad jaara jeng na waxta daate mu jàggati waaye nii te nag ma dimbale ala faka kibnati hmm. ci xob ci xob bi suma doomam jigéen hmm. mi yedina day ci loxoy noon yi hmm. suma doomam jigéen bi nekk ci loxoy noon yi nga xam ne nooni julit ñi lañ nooni diina ji lañ nooni yàlla lañ suma doomi jigéen bi nekk ci seen loxo mu la bëgg nga xettali ko joxe alal bi ko jotee mu génn bañ a nekk jaam nekk gor waaye ni te nag ma dimbale ala fakka kimnati ci xot xob bi sama doomu jigéen mm. mi yedin daa tukkee ci loxoy nooni mm. fa bisaa ci lii tan mahi lay fare mm. almaasimu bakkari am man ci ku xam ne tamarra dafa teerlu na li de soo ko defee doo defee ti bakkaat de wa bihi ci lii tuqbal la defi nangoo alina ba su tuub mi man ci ku xam ne tasahaada dëddu na àddina hmm. soo ko defee hmm. ma xama bu ma xama bëgg àgg ci yàlla hmm. ah da nga ci àggale ndax loo defate yàlla dina ko nangu ba bii ci moom tuquban la deefe nangoo adina batu tuub mooy dellu ci yàlla mi man ci ku xam ne tasahaada dëddu na àddina soo ko defee de ma xama bu bëgg àgg ci yàlla da ci àgg de kon lii su fekkoon nga baax baax na ci yow bi fekkee baaxul a rawati woo moom mm-hmm. li ma la wax nii mm-hmm. kafaaratun kafaara la farug bàkkaar la mm-hmm. li man ñaal koo xam ne saaxa jengoon na mu min baadi ma tada ci gannaaw bu mu gindeekoo li daal ku ko def ak lu bon loo mos def itam man nga caa xamee farug bàkkaar niru na wéy kese de waaye laahi biir la de maanaam wala in qumtu wallahi bu ma taxawee E mursidan daaji saddu way hmm. e fala xat fuutu tudd naa mursidan daaji gindi xam hmm. naa niru na wéykat de hmm. wéykat na wéy na luñ ko génne ñu ne waxe wéykat la waaye lii laa yee biir ci de ne <laughs> xanaa bu ñu waxi wéykat la de laa yee biir ci de ah, wala in wallahi bu ma taxawee mursidan daaji saddu way fala xat fuutu tudd naa daaji gindi du niti dara alkalbu wassaahiru fi rutbatin yaa layta anni lam akun saahira benn lañu taxawal rek mooy seen bi duñ niti dara adama ne lii sihru la de waaye isa dañ ci de faqbal na nga nangu annusa lahe biir wal hidayata ak gindi waskur te nga sant le man ñaar ki nga xam ne hada gindi na la kon nangul sama layee biir bi hmm. nangul a tegee ci yoon yi ma la teg hmm. te nga sant bu baax a baax hmm. sant gi mooy sax ci bañati mu rëcc la wasmax te na tabee al aana léegi billa ci li nga xam ne yetta sanna dana mu jàppandi li tox ma da ngir na santeef la su ko defee loo ci mën a feeñal nga tàmbali ko léegi-léegi ndax lu jàmp la lu jàmp amul yéexe xaala wax na abu zaydin hmm. ne falamma atmamtu ba ma matalee hmm. hadramati sama bebet mooy sa wax joo bëri hmm. wa ohima te def lehoos almas'ulu ki ñuy laaj si daxa kalimati dëggug sama baat bi ma waxee ba fii waa foog ne lépp lu ma wax dëgg la axraahu xiir na ko alxaramu sopp ma la woon xawaraahu xiir na ko alxaramu sopp ilal karami jëm ci tedd nga bi mu waasaati ci dimbalanteeg man doon gim doon kërim nekk gërme bëgg yëf yi ndam tax na ca saasa xam na lum def waraqabahoo te xemem loo ko alkalafu sopp bi hamlil kulafi ci henu ay coono fi muqasati ci jànkuwanteeg man xattan gum xattan ci nangoo sonn tax na li ma wax lum diis diis def na ca lu solo axraahu xiir na ko alxaramu sopp nimse ilal karami jëm ci tab bi mu waasaati ci dimbalanteeg man waraxa bohoo te xemem loo ko alkalafu sopp bi hamlil kulafi ci henu coono yi fi muqasaati ci jànkuwanteeg man wala daxa mu dal de xontu lii ñi halma alal xaafirati ci gaaw mooy ca saasa rek jox ma dara wa nadaxa te lu baax faradaxa mm. mm. mm. mu daal de compte lii ñu alma alal xaafirati ci gaaw wanadaxa mu daal de ba tey mu daal de compte lii ñu alma benedati ci dëxal alwaafirati bu daa ji bëri mu lu mu yëg ka teg ci suma loxo ne ma lii xëfi ne waaye daal nga ma insha allah xol dana sedd loolu la wax fan xalabtum fan xalabtum illa wakri yi jëm ca sama tàgg mm-hmm. abu seydi ne mu wëññeeku dem sama kër kori mm-hmm. ham daa ji bégee mm-hmm. bi nu ji makri yi ci faju xaajoo sama pexe dinaa sama pexe tey moom sotti na waqad hasaltu te miroom xamal naa min sawxil makidati ci tëgg tëgg pexe ala sawxil saridati ci lekk sarida wéela sarida mu ne pexe mi de tax na maa am reer boo neex de lekk naa farida farida ñam lay do wu xam ne ñu koy liggéeyee yàpp ak mburu waaye liggéeyin wi xama ko nag loolu moo tax dégg nga isamal xubsu tadimuhu bi laxmin fa daka amanatillahi saridu loolu mooy sarid waaye liggéeyin wi xama ko de isamal xubsu tadimuhu bi laxmin fadaka amanatillahi sariru mane fadaka sarir wa amanatillah maasamaawul xasami dama ne waqad hasaltu xamal naa min sawxil makidati ci tëgg pexe ala sawxi saridati ci lekk sarid wasaltu ma jotee min xawkil qasidati ci rabb qasida ila law kil asidati lu mën a xew daal sama wax jamam jëlee naa ci reer boo neex moom qaala al haris ibnu hammam haris ne fa qultu ma wax la hoo ñaal ko ma ni ko haa subhana man tudd naa sell buur bi nga xam ne abdahaka fent na la xam naa xéemati naa yàlla ki la sàkk de laa koy wati naa yàlla ki la sàkk de subhaana ma tudd na ma sell ak nga xam ne ab na ak fent na mu la xam na yàlla ki la sàkk mi mm-hmm. nga bokk mm-hmm. fa maa lëf lu màgg en sama màggal na ku daa ka say suru mm-hmm. ak nga bëri pexey naxe waax ba sa te mu bon loo bi daa ka say yoon ak nga bon plan plan yooyu lal waax ba sa te mu bon loo bi daa ka say yoon mooy mbiri nga def ci sa ñëw ak bopp loo xam ne danga koo royee ci kenn hmm. mu ne laa ko wax fastaara ba mu jéggi dayoo kë dayi ki ci ree mu ree ree ju xiir a xiir a xiir hmm. istixraab mooy ree ju xiir a xiir hmm. xam naa tax taxa rek moo ko kowe su ma am sadda topp mu sadda xayra murtabikin duumu aji yéex mu commencé woy xamul nag benn yéexantalu taxawaalu déedéet ma yasbil xidaa'i fa anta fi dahrin banuuhu ka usdibisa waadir qanaatal magrihat ta tastadira rahal maesa wasidin nusura fa in taad tarafayduha faqna birisa wajni simara fa in tahut kafarad bi nafsaka bilhasisa waarih fuadaka innaba dahrun min alfikaril mutisa fa taxayurul ahdasiyu dinu bistihalati kulli insa mu ne na ngay dund bil xidaaya ci wuruj da nga naxanteeg nit ñi da jaar ci seen kaw di jàll fa ante yow fii dahrin yaa ngi ci jamono joo xam ne ba nuuhu ay doomam hmm. ka us di biisa te ñu ngi mel ni gayndey barab bu yo wax biisa hmm. xëy na gayndey fa ñàng hmm. jamono bii ngay dunde nit ñi amuñ yërmande amuñu jom nax leen rek mooy mën a tax ñu jëriñ fa ante dari yaa ngi ci jamono yoo ne ba nuuhu ay doomam ka us di biisa ta ñu mel ni gayndey barab bu ñuy wax waadir na nga wëndeel xanaatal maghrib guntu a pexe xata xata tas sa ba wëndeelu raxal maaye sotti gën nag madina dund dayal del def pexe ba am loo jàll waadir na ngay wëndeelu xanaat na ngay wëndeel xanaatal maghrib guntu xa pexe hmm. xata tas sa ba wër hmm. raxal maaye sotti gën nag madina dund hmm. wasirte na ngay rëbb annusóora tali yi mm-hmm. boo yóotu da nga yóotu lu rëy mm-hmm. su sottee nga am lu rëy su mm-hmm. sottee nga doy la lu tuuti di nga am waaye ko tappale jaru nga yóotu lu rëy su sottee am lu ah bu sotti wuti nag gannaaw lu nga mën nga doy loo ko gannaaw pexe rekk la kooku jaru wane ngott ci wasit na nga rëbb na ngay rëbb hmm. annu tali hmm. fayin taxan dara su ngantaloo nag fay doora rëbb rëbb tali hmm. soo xamee jot ci tan nag ah faq na nga doyloo biri sotin ci wennoo dunga rek boo ko amee nga doyloo wañ ni na kotti asimaara meññet yi da ngay hittewoo witt meññet fayin tawut ka bu la meññet yi faatee faradi na nga gërëm looyee na nga gërëm loo nafsaka sa bakkan bila sisati ci bopp ci ñax mm-hmm. dangaa wut meññet bu la nga doy loo ñax mm-hmm. léegi daal gannaaw daal ñoo ñot yóotu rek la mm-hmm. yóotu lu rëy lu rëy bu sottee nga am lu rëy bu nga doy loo lu li nga mën wu arex te na nga noppal fu aadaka inna baabu bekki nga lay dahrun jamono hmm. noppala sa xol minal fikari ci xilaat hmm. almutiisa yu de way teyloo hmm. su fekkee jafe-jafe jamono dafa am nga wattandeku daladi boo xam ne daf la yàqal dugg daf la yàqal jéem dara daladi bay tàggoo sa sabo léegi mbir mu jamono indi wala bu ko def waaw noppal fu aadaka sa xol inna baabu béy ci ngale dahrun jamono mel mm-hmm. fi kari ci xiraat al mutii sa yu de way tooyloo mm-hmm. fa taxayurul ahdaasi soppeeku xew-xew yi mm-hmm. yu denu dana mu xamle bistihaalati kulli insatin ci jàll beeku bépp dund mu ne xew-xew yi ni ñuy soppeekoo moo lay xamal ne dara saxu waaw jamono bu nekk rek seet lam déggoot moom lay lay hmm. wa dur ma dahri hmm. wanzur fi awaqibihi xidara hmm. an tubtala aynaka bir ramadi wa dur ma dahri wanzur fi awaqibihi xidara an tubtala aynaka bir ramadi dinañ ko baax a baax ñun la daa yawma amsi wa xus fi sani yawmi xadi wahdud li nafsika fihi afdal al odadi walbas li kulli samanin burdatan hadarat hatta tuhaka laka al uxra min al buradi min al burudi wa dur maa dahri wanzur fi awaqibihi idara an tubtala aynaka birramadi waalam bi anna alayka alhaara talbasuhu min haddati alkalbi laa min abdatil asadi mu ku nekk dafa war a dawkat màtt ko mu dee mooy gàcceem waaye gaynde màtt ko mu dee kooku du gàcceem waalam bi anna alayka alhaara talbasuhu min abdatil kalbi laa min abdatil asadi waaw mu nit dawkat màtt ko mu dee moo de gàcceem gaynde màtt ko mu dee kooku du gàcceem waaw lu la waaw waaye lu tuuti rek sonnal la kooku daal dëgg dëgg moo tax boo demee bay song songal lu rëy rek <laughs> waaw xëy na bu baax a baax baax na ko beneen yoon incha allah